ñu joxuñu ñu fayda looloo tax nag a ah, nit ki kat am nga droit rey ko mais mënoo ko tere bañ a féqatu moo tax ñu dank ñu fas yéene bank suñuy loxo xeex pour ñu delloo ñu suñuy yelleef xeex nañu ñetti at nag ñi ngi doon liggéey ci ay ay texte texte yooyu pare na bu yàgg yii ñi ngi nelaw ci tiroiru garde des sceaux ñii ñi ngi nekk di nelaw fële primature ñeen yaa ngi nelaw fonction publique ku ne ñu bëgguñu ñu kii daal léegi nag comme dëkk bi ah nu mu tëdd balaa ñu laa faale nga taal daay moo tax tey ñu taal daay daayu ñetti fan la nag tey lañ ko commencé tey jii lañ ko commencé te bu ko jaree nañ ko làbbali. ministre de la justice Ismaïla Madior Fall euh, duñ koy wax rek ne moom bi muy ñëw dafa fekk réforme yëpp pare clé en main maanaam xam lu ci desoon li olof di wax togg nañ ko ba pare yàq rek a ci des na ko yàq amul guddal jël na ko yàq mu jeex lu bu loolu weesoo na taxaw ci payooru sénégalais yi nga. payoru travail de la justice travail de la justice ay nitu sag lañu boo leen gisee dañuy solo bu baax di defaru bu baax ba foo leen boo leen gisee da ngay foo nam ñàkk ñu dara mais sag la ñuy demee te loolu tant que problème boobu càcc ak euh, kopartu ak wuruj du jóge ci këru justice ak atte nyakal. da ngay atte tey ne ma gañ a tourné dootoo gis dossier bi mu ne mëy loolu tant jëluñu nit ñi den fayu gor ñu ki ndax olof Ndiaye nee na nit balaa moo gore am ci lu mu góor sénégalais yi euh, war nañ ko xam seen travail de la justice dañoo damm dañoo tay moo tax ñuy laajte nañu état bi jox indemnité de logement duñ ci am droit nañu état bi yokkal suñu indemnité de participation à la judiciaire duñ ci am droit nañu état bi jox lu ñuy wax incitation à la célérité parce que duñ cee am droit